ay kàddu ziyaar la ak kàddu sant suñu boroom ci turu président Idrissa Seck ci sutura bi ko yàlla defal mu ànd ak jàmbaar ju mel ni Pape Bassirou Diop ba mu réaliser lii ci Hersent président moo bëggoon a ñëwal boppam pour sant Pape Diop gërëm ko encouragé ko ci li muy def ci Thiès Est yàlla dogal xat-xatu wante monsieur le maire sachez que le président Idrissa Seck vous félicite vous encourage et vous remercie dans la prise en charge des problèmes des populations de Thiès Est et c'est l'occasion pour nous de vous témoigner de notre satisfaction dans votre engagement politique aux côtés du président Idrissa Seck, mais également dans la prise en charge des préoccupations des populations de Thiès-Est. Vous êtes un maire modèle, vous êtes un maire exemplaire, vous êtes un maire travailleur, vous êtes aux côtés de vos populations et vos populations aujourd'hui vous ont démontré leur satisfaction. Donc félicitations, monsieur le maire Papa Diop. Je voudrais également vous dire que vous considérez un modèle pour nous, les jeunes leaders politiques. que ça soit pour moi, pour Lamine Diallo, pour euh, euh, le maire Aliou Sow, comme pour les autres jeunes leaders politiques, vous êtes un modèle d'engagement et de proximité avec vos militants, avec votre population. Donc, monsieur le maire, ñu ngi lay sant di la gërëm suñu mag nga suñu kilifa nga taxawa nga ñu fi ñu Idrissa war a taxawu jàppale nga ñu ni ñu Idrissa war a jàppalee ñun suñu gisul Idrissa sax suñu xel day dal ndax yaa ngi suñu wet yow ak Idrissa benn ngeen yow ak Idrissa ay seex ngeen moom laa lay wax naan la maire bu gàtt ndax yéen ñaar seen gàttaay yi ak seen ànd dafa rafet seen ànd bi rafet na yàlla na ko yàlla barkeel ba ñu comme ni ko suñu papa ji waxe sànq ñu ñaan suñu borom mottaleeg jàmm ñu ñaan ñun ñëpp yàlla mottali ba Idriss Seck fi egg au palais de la république parce que monsieur le maire yaa ngi jéem di def benn di def ñaar su Idrissa Seck nekkoon président de la république di nga def téeméer pour waa Thiès kon jigéen ñi dama leen di encouragé ngeen gën a jàpp ku egg jigéen ñee la eggale ku egg ku réussir jigéen ne la jàppale li ngeen seen taxawaay yi wane na ko seen mobilisation wane na ko li ngeen animé wane na ko kon gën leen a jàpp ba Idrissa egg palais li ñu li ñu bëgg Thiès na Idrissa bëggoon Thiès mel ni Paris cees gën ci dëkk senegal yépp cees gën ci dëkku Afrique yi te kenn du duñu ñee ci àdduna bi yàlla na ko yàlla mottali te loolu pour mu am nañ ko gën a jàppale gën ko gunge ba mu egg palais de la te yàlla moom na ko yàlla na ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu autorités yi fi toog yépp di nuyu sama collègue chef de service c'est vrai ni ko bookum waxee dama fee taxaw ci double kasket chef service régional commerce bu Thiès en même temps président amical chef de service yëpp donc bu ma fi taxawee chef de service yëpp taxaw nañ ah tey ma sawar ñëw nag fii ci Hersent parce que nekk na bis boo xam ne bis bu mag la bis bu rëy la parce que dafa am réalisation boo xam ne dafa am solo bu fi am donc mënuñoo bañ a ñàkk ñëw magnifier ko sànq bi ma ñëwee dugg naa ci biir marché bi xool ko mais wax dëgg yàlla ko ko gis xam ne liggéey nañ ko kii marché la ànd nag Samba Gueye dugg ci biir xool ko ma koy nuyu au passage parce que def na fi liggéey bu rëy bi ñuy xamante yàggul mais Samba Gueye aussi day liggéey pour Thiès te mi ngi jàppale waa Thiès te kenn xamu ko mais moom defu ko ci politique mais da koy def ci beneen côté ci social donc Samba Gueye ñu ngi lay gërëm di la sant su loolu weesoo parce que gox bu nekk bëgg nga am marché bu mel nii donc yéen Hersent nag comme fii la tàmbalee ci yéen te xam naa ñeneen maire yi danañu roy ci marché bi pour def ko feneen li ñuy ñaan mooy defar nañ marché bi yéen ñëpp dugg leen ci biir marché bi jël seen i cantine di fa jaay lu baax nit ñi di ko lekk te ngeen bàyyi mbedd mi mbedd mi du palaasu jaayukaay dugg leen ci biir marché bi occupé taabal yi occupé cantine yi parce que mbedd mi du chaque jour ñu naan dañ leen fiy jëlee boo demee ci mbedd mi ñu la fiy jëlee ku tabax marché bu mel nii ne la kaay dugg ci biir dugg ci ah tabaxal nañ leen marché bi. te aussi marché bi tabax nañ ko mais dana dimbale borom kër yi parce que boo xoolee marché bi quatre-vingt pour cent yi fi nekk yëpp ay jigéen lañ te présentement fi may wax ak yéen man xam naa li jigéen ñi daj bu dul dara dana ñëw autorisation Fra ñi ngi ci céréales yi ñi ngi ci jus yi bisaab beeg jinjeer jeeg céréales locales yeeg yëpp bàyyiwuñu ko jigéen ñi nag kenn mënu leen ci kër ñi donc du ma guddal na ngeen dugg ci biir marché bi jël taabal yi di fay taxi yi te maire yi aussi li leen war ñu koy def dara bañ a manqué ci marché bi te problème bu amee ci marché bi aussi nii ñu ko defee comme tey chef de service yëpp a fi toog autorité municipale yi toog fi ñuy dajee ak commerçant yi toog di waxtaan di saafara problème yi comme ça benn gox du ci am problème foofu laa leen di jàpp di leen gërëm di leen sant wasalaam responsable politique yëpp su ma tuddee seeni maire tuddaale naa leen di nuyu suñu frère Mamadou Lamine Sankhare adjoint au maire de la ville de Thiès di nuyu sama bureau municipal yi yëpp dafa naa ni bu ma limee dinaa juum mais Ali Tonkara Astou Diène ñoom Magay Cheikh Diane Lo bi nga xam te dafa demal ci moom itam ci renouvellement poste de santé yi loolu ko fi tee teew di nuyu responsable yi nekk ci commune est yëpp di nuyu conseil yi nga xamante ni ginnaaw yàlla lii bu réalisé rek yàlla ak ñoom la parce que su ma bëgg a nanguwuñu aussi du sotti kon maa ngi nuyu tous les conseils municipaux yi nga xamante ni ñoo nekk Thiès commençant par le bureau municipal parce que nag ñun ñoo bokk commune bi yàlla def ñu jiital ma mais bu doon lu ma xalaat lu ma bëgg itam ànduñu ci dafay métti kon su ma neet maa ngi sant conseil yi fi nekk yépp parce que ça veut dire que nii defuñu conférence politique parce que nag y avait tous les partis représentés parce que waa APR a ngi fi waa PDS a ngi fi Maguette Sarr adjoint au maire la mi ngi fi te des la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni bokkuñu parti mais terewul bu ñu nekkee dañuy xam ni li ñu ñor mooy askan wi. loolu la ñuy doxal moo tax yàlla def suñu conseil municipal amuñu fa benn problème kon man mënuma leen a ban sant parce que bu dee wax fii itam yàlla ak ñoom la kenn gisul yàlla di wàcc ci loxo kenn mais nag mbooloo mi yàlla def na sutura ñu déggoo ba lépp lu ñu soxla yàlla mën ko yombalal loolu moo waral tey lii di sant ñi nga xamante ni tam ñooy dëkkandoo yi waa er waa xel ga ñi nga xamante ni ñoo moom seen kër yi nekk sës ci marché bi ñu ngi leen di sant bu baax kenn du leen fàtte parce que nag ñoom ñoo yaatalan bi nga xamante ni dañoo ñëw di defar marché bi ñu nekk seen buntu yi suba ak ngoon loolu nag ay at kon war nañ leen a sant bu baax mën naa cee dugg lu bari waaye nag dafa petit bala may avancer aussi sant sama frère boo nga xamante ni li ma naan relation na ko nit ñu fonk koo nga xamante ni ba may xamante ay waajuram en 83 en Europe ca Espagne muy entrepreneur bi nga xamante ni mooy le frère Samba Gueye mi ngi ñuy toog mi ngi ñu taxaw moo réalisé marché bi boole ko nag ak loo nga xamante ni sax lu dépassé vraiment li ñu yaakaaral kon Samba Gueye ñu ngi lay sant bu baax donc xame ba ma xamoon ak say waajur ca extérieur ba nga ñëw Thiès tey jóge Mbàkke di fi réaliser lu mel nii kon war nañ laa sant voici un modèle d' entrepreneur boo nga xamante yaa de quoi ñu sant ñu mel nii yaa ko quoi ñu jàppale ñu mel nii pour le développement du Sénégal ñu ngi sant bu baax ñi nga xamante ni wax nañ fi yëpp xam naa ni temps bi ñu ngi dem mais riban bi mu il faut ñu daggi ko mais nag dinaa wax tuuti li nga xamante ni li waral réalisation yi parce que nit kàddu dañ ko war a sàmm parce que bu ñuy campagne nañu bàyyi xel ci li ñu waxat am na ñu ñuy déglu nanu bàyyi xel ci diggéey bi nga xamante ni dañ ko doon def yàlla dafa def ñu def caravane ñëw ko fii vers les coups de treize waa marché bépp génn taxaw teeru ñu wax ak ñoom ñu déglu ñu ñu laaj nu ñu wax leen suñu yéene ci gox bi ñu leen bu soobee yàlla ak yonent bi day bu nu yàlla defee ñu jël mairie bi li ñuy njëkk a def mooy mbaar yi situation bii mu mel dinañ dinañ changer xar kanam bi ba nga xamante ni Euh, dina dina mel ni mu waree yàlla dogal ñu nangu loolu rafetlu ko ñu defa ni ay campagne rek la woon ay wax rek la woon ay promesse ah ñuy dem yàlla def ñetti weer nañ ci teg muy taw ñu woo ma chaque fois bu tawe marché bi kenn du ma fi jiitu délégué yaa ngi nii toog li ma wax di ko wet tous les jours je sais que ni fu mu tawee rek bu ma xëyee ñëw naa sant waale aussi itam waa sapeur pompier parce que ñoom laa daan woon ñu ñëw ubbi caniveau bi vidé ndox mi loolu il faut ñu sant leen de passage yàlla def ñu dem ba nga xamante ni dañ ne nag lan moo des tabax marché bi yàlla def ñu waxtaan ba d'accord yàlla yombalal ñu ko ba ñu réaliser ko kon lu mel nii buñ ko yàlla defalee ba ñu taxaw tey di ko inauguré il faut ñu santaat yàlla bu baax santaat yàlla ñu ma ko bokkalan sant yàlla ñi ma ko yombalal sant yàlla bu baax ñi nga xamante ni mën nañ cee indi yenn gàllankoor wan ni politique la donc du sunu parti du sunu leneen mais loolu defoon naa ni politique boobu dañ ko war a dépasser ñoom li ñu def ñun defuñu ko pour suñu soxla bopp ñun dañ koo def ngir loo xamante ni demande la woon koo xamante ni population bi moo ko soxla parce que population bi moo ñu ñor bi mu ñoree ba nga xamante ni wax nañ ko wax nañ ko commencé commencé nañ ko yàlla def na benn ilo bi àgg na te dinañ jëm ci bi ci des bu neex yàlla ak gën ko biñ koy def aussi lépp dem comme ni ma ko wax rek délégué de quartier bi facilité facilité na ci lu bëree bëree bëri donc sant nañ ko bu baax a baax a baax temps bi rek moo tax mais su ma jëkkoon parole bi mën naa waxaale lépp mais nag bu ñu tënk dinañ ko wax li ci des it mooy marché bi biñ koy def vraiment comme li ma wax rek ñun bi biñ koy réaliser ba pare damay wax ni foofu ñu bàyyi xel ci nga xamante ni nag may lancer appel au président de la République di Sénégal le frère Macky sàll parce que nag ñun bu ñu waxee li li ñuy wax ni tey dañ koy wax waxuñu critique yoo xamante ni dañuy critique pour ñaan dañuy sànni xeer dañuy wax li nga xamante ni mooy dëkk Macky Sall bi muy campagne moom ak i nawleem ñoo àndan kenn ku ne am sa programme mu wax na fi lan rupture ñu ni waaw ba yàlla jox ko réew mi mu jóg wax ni Sénégal émergence léegi nag Sénégal émergence nag dama yaakaar ni Fongolimi ak Mada euh, euh, Matam ak fu mu mën a doon Sénégal ba mu daj fépp ci la bokk kon du du Dakar kese du feneen kese du loo xamante ne da ngay génne benn dëkk rawatee nag lu mel région bu day ni Thiès. li muy wax nag dama ko en tant que maire gis loo nga xamante ni li tax ma wax ko dama koy fàttali loolu parce que acte trois dañ ko wax biñ ko waxee ñu ñëw ni acte trois bi lan la mooy li ngi développé euh, commune yi li développé commune ci euh, li def collectivité locale yi commune yi mooy développé mooy koy développé léegi bu ko dee développé mais ñun dañoo dem ba seetlu ni dafa mel ni dafa am kumba am ndey ak kumba amul baay may rappelé ni nag loolu waruñu ko des loolu waruñu ko nangu may lancé un appel que le président de la république na bàyyi xel ci discours am bi mu doon programme bi mu tëralan rupture pour kumba am ndey ak kumba amul baay loolu moo feeñ fii ci cees parce que boo demee ci fonds de dotation yi suñu ministre tutelle muy Abdoulaye Diouf Sarr commençant par euh, yum bon boo demee Thiadiaye defe naa ni Thiès Est fait cinq fois Thiadiaye nga dem ci fonds de dotation yi laajal naa sama secrétaire municipal mu indi euh, répartition bi parce que nag mënuñu jëm foofu yi di leen jox ay trente cinq millions ñëw Thiès Est di ko jox huit millions te Thiès Est fait cinq fois Thiadiaye loolu nekkul lu jaadu loolu jaaduwul rafetul donc comme jaaduwul rafetul nag dañ koy déplorer di leen fàttali encore le ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom itam ku ci nekk toog dañuy toog naa bureau mais seen boo discours yi ñuy am devant les médias yooyu laa ne nag nañ koy pratiquer ci doxalin bi ñuy doxal pour la développement du Sénégal parce que nag dox defuñu ko moo tax ñu wax ko te doonoo gis ni maire bu ànd te ñoo ñu ni duñ ci defar sa affaire ñun waxuñu ko defar suñu affaire ku développer réew mi la ñu wax développer réew mi nag. dafa naan ñun bu ñu nekkee Thiès il faut que ñu bëgg ku développé Sénégal yalwaar nañu saraxu wuñu li ñuy wax suñu droit la bu ñuy wax ba nga xamante ni lii ñu def tey ku ko gis ni ñu ko réalisé war a xam ni nag euh, ñun lu développé Sénégal loolu ci la ñuy moonu ñor ci la ñuy dox waxtu ñu ko nu jàppale ñun Pape Diop en tant que tel. donc loolu lay lancé appel foo xamante ni ma ci bàyyi xel vraiment parce que bu ma ko waxee tout récemment dafa benn conseil municipal bu nekk ci suñu commune Thiès Est. kon donc je suis mieux placé pour wax ko c'est un frère mooy mooy président coopération bon ñun ñoo ko def te nekkul sa parti réew mi pour wane ne ñun li ñuy def defuñu politique boo xamante ni dañuy xool ay colorance parti ñu def ko ko mais terewul bàyyi na dem ni na ku dem bu demul ci ab euh, pouvoir bi du am li mu bëgg du mën a jàppale li mu euh, ñi mu euh, ay militant loolu nag ma yaakaar ne loolu kon wóorut tax ñuy defe doxe ni ñuy doxe parce que nag opposition mënul ñàkk ci dans un pays mënul ñàkk il faut ñu opposer def des objectifs euh, des critères objectifs yoo nga xamante ni dañuy wax di ko fàttali sax au moins parce que ñun ñoo war a nekk euh, ay conseillers numéro un le pouvoir opposi opposition moo war a nekk ay conseillers numéro un parce que nag buñ dee déglu li ñuy wax waxuñu pour lu ñu jariñ dañuy wax lu jariñ askan bi loolu nag buñ ko dee wax il faut que nit ñi ñëwuñu pour naan dañuy xeex boo àndut ñun du ñu defar mën nga defar Sénégal bàyyi cees mënul nekk impossible Thiès fait partie du Sénégal bu ñuy dem ba naan deuxième capitale du Sénégal Thiès moo ko war a abrité mënuñu nga naan da nga koy tëb nga ay lan affaire politique loolu nañ ko waxan naa ko bu yàgg nee naa leen Idrissa donnul Thiès doomam donn ko ñun ñuy taxaw fii duñ ko donn suñu doom du ko donn kon il faut que ñu bàyyi xel ci ni danoo war a changer mental euh, mentalité yi il est temps que ñu changé ko loolu dañ ko war a passé li ma doon rek Macky Sall lu bari war war na ko servir de leçon parce que li mu waxal bi muy campagne mi ngi fi ay programme am mi ngi fi mais par rapport ak ni ñu doxalee ak euh, ay chef de service am la ay ministre am ko seetaat bu baax a baax xool jaadu na wala jaaduwul ñun on est mieux pour wax ko loo xamante ni mooy dëgg donc marché xel ga ñu dellu si ci wax ni sant nañ yàlla bu baax te yemuñu ci marché Kër ga def naa réalisation yi ci tuuti bu ñu duggee dinañ leen ko wan. marché Ocass li ñu narit mooy comme ni ko bëgg ma xamal rek ci programme lañu amal suñu demee ci yeneen communes yi yeneen marché yi am nañ seen doléance mi ngi suñu table marché Ocass ba mu dama fa dem visite ñoom it lu mel nii gis situation ba doyen waar ñu doon réclamer des toilettes yàlla def ñu réaliser ko xel koom la même chose loolu lépp ñu def ko fu ci dem rek lu nu wax rek yàlla dañ ñaan nañ yàlla jéem ko def yàlla dimbali nañu ba ñu réaliser kon il faut ñu sant yàlla bu baax Sampaate aussi am na espace ñu ngi pare pour waxtaan ak entrepreneur bi pour que li ñu digge woon lépp li soxla askan wi yàlla may nu kàttan ñu mën ko def loolu dañ ko def mu sante li may wax euh, maa ngi koy wax devant le frère euh, Babacar Pascal Ndione parce que defe naa ni xool na jéego yi ñu ci doon def entrepreneur bi ci boppam entreprise bi ñëw na defar na études yi defar na plan yi ba mu pare c'était un coût de deux milliards six cent et quelques boo nga xamante ni waroon na ko réaliser mais waxtaan nañu ak les commerçants di waxtaan nga xam ngeen Sénégal li fi xew foo yàgg rek defe naa ni da nga fay bëgg a réclamer des droits doo nungu sax a référé wu ci yoon mais nag suñu frère lañ ba tey duñu arrêté bañ a continuer waxtaan yi parce que bu ñu gisee lii ñu réalisé mu sante bu ñu ko commencé woon moo doon jiitu fii tey it naa ni l' entrepreneur ci boppam pare na pour toujours parce que nag accord bi amoon na avec ces banques donc lu mel noonu nag dinañ ci gën a waxtaanaat bu baax ba nga xamante ni liñ ci yéene woon parce que marché boobu dans l' Afrique de benn la fi doon doon lu mel noonu buñ ko defee loolu lépp ngir lan yàlla ak taxawu askan bi la doon donc ñu ngi sant ñëpp di sant ñi fi ñëw ñëpp Abdoulaye Fall maa fàttewuñ ko ce matin laa ko ko wax mais xoolal bokkuñu parti mais dafa ñëw parce que man noonu laay fonctionner Babacar Pascal Ndione mi ngi nii ku ne xam na ko mi ngi am mouvement jàppale Macky Sall il est libre am na ci plein droit mais nos relations permettre na ko mu ñëw toog fii tey ñuy wax te mun ta yàq dara ci sunu euh, ci sunu relation donc lu mel noonu lay loolu la ñuy wax nii nañu changer politique bi ñuy def ku àndut ak man rek nga def ko noonu loolu di yoon ñëpp mën ñoo fex yàlla mi sàkk sax am na boo gisee ñu ni bind chrétien yaa ngi fi catholique yaa ngi fi jullit yaa ngi fi nga ñëw ci mi jullit yi yaa yaa lee lan yaa lee tijaan yaa lee xaadir yaa lee laaj ainsi de suite kon lu mel noonu su amee vraiment ñii ma invité leen bu nu bokkul sax jëmukaay ñu ñëw il est ku ci xoolee xam ni politique jarul nit ñi di jaxasoo il est temps que nit ñi xam ni dañoo war a politique uniquement pour le développer Sénégal loolu mooy ci kon ñu ngi wax ni comme le montant yaa ngi leen koy laaj ñu wax leen ko ça fait euh, mi ngi woon ak secrétaire municipal bi kooku bu ñu paree dañ leen ko jëlee mais je crois que benn kilo bi def na 68 millions 800 euh, et quelques mille benn kilo bi ñuy inauguré léegi. le reste nag euh, mooy yi ci desit dans trois semaines bu soobee yàlla dinañu waxtaan ak. entrepreneur bi ñu xool ni ñuy mën a def jublu ci réaliser beneen Île euh, Robert bi comme soobu yàlla gis sant nañu commerçant yëpp sant nañu waa UNACOIS yëpp ñoom Abdoulaye ñoom Aminata ñëpp ñi fi ñëw ñëpp mënuma lim mais maa ngi sant ñëpp population Hersent particulièrement ñu ngi leen di sant ci seen yaatu leen délégué de quartier àggal leen sant ci ñëpp sama frère Thiamar euh, bien